lay bëree bëri te lay bëree bëri ndaanaan laa ñaari yoon tey jii ñi nga xam ne ñi ngi ñuy seetaan ñi ngi fii ci Pikine tey jii toog ki nga xam ne moom mooy Mor Talla tey jii xam ko ci Pikine du Pikine xewal mu saf ci sàpp tey jii Mor nuyu naa la comme ni di rafetlu aussi seen déplacement bi nga xam ne déplacé wu ngeen ñëw fekk ñu fii nii nga xamante ne mooy suñu fief Pikine muy cité 3 di Tali Mbaye Gàkko ñu gën koo xam fi ñuy fréquenté fii muy karoy waaw moo ngeen jëm ci bés bu mag tey jii diggante Ama ak Modou waa Parcelles di waaj waa Pikine di waaj waa Pikine tey fa nan la bis bi toll tey xam nga bis bi moom comme ni ko waxee luñ naan ma ñam ma ñam ma ñamaat jafewul boo déggee ma ne la ma ñamaat jafewul mooy maanaam tey jii nii roi nekkul loo xam ne gan la ci Pikine Mouhamed Ndaw Tyson indi na ko fi rakkam Eumeu Sène indi na ko fi tey combat royal bi amaat instant yi nii bi nga xamante ne cinq la yam incha allah ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé kon dafay nekk benn benn travail continuité rek gars xam nañ yoon bi jafewul ci ñun boo déggee ma ne jafewul ci mooy maanaam comme parcelle ñun xëy na dafay doogu dugg ñun léegi dugg Pikine dugg na fi plus de deux fois kon tey jii xam naa ni rafet naa njort mooy sama waxu démb day méngoog samay waxu tey mooy amuñu xel ñaar ndax Ama day nekk roi des arènes incha allahu rabbi ndax bu dee fulla ak fayda ak jom moo koy maye Ama dina nekk roi le cinq incha allahu rabbi ñu gis fi mu leen toll tey jii ñu gis ni Ama tey jii ki nga xam ne moom mooy Modou moo bëre woon nag moo bëre woon nag Eumeu Sène ki nga xam ne moom mooy magam daan ko jël boo xam ne jégg na dayoo tey jii Ama tey jël combat combat boobu tey jii loolu du ko bëre waale du doon boo xam ne da koy da koy gàllankoor ci bis bi non non lamb moom comme gars yi nag fi ñu koy bëgg a yóbbu nekk fa quoi. xam nga tey Eumeu Sène bëre naag kii bëre naag bëre naag ak ci ñaari yoon te tey jii nii mooy li may wax rek loolu nekkul loo xamante ni lu lu war a mën a euh, moom ci boppam Eumeu Sène moom mi nga xamante ni am na ci ñaari défaite moom toog na ne tey jii di ñaanal Ama ñu koy nuyoo passage tamit di ko ñaanal tamit ci combat bu mu jëm yàlla na ko ci yàlla defal ndam affaire comme ni ñu koy waxee destin la yàlla moo ne Modou Lo dina daan deux fois Eumeu te loolu noonu destin parce que tey jii nii Eumeu Sène mu mooy pour dégg tur bu dégg na koo pare mais tey jii nii ah mi nga xam ne moo ciy dem maanaam nii boo xamante ne dafa dugg ci làmb am lu mu fi ba ba ba prouvé ba parce que Modou Lo jël ko pour bëgg a bëre que dafa jot mu jël ko moo tax te tey mooy li may wax saa su rek la ma waxoon laay waxaat mooy am ñëw pour bëre si dafa ñëw pour daan si d'accord léegi bu ma jógee foofu tey jii ñi nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy Ama tey jii ñu bëri la doon wax combat bi du ko bëri ndax parewul ñu naan day dugal certificat médical pour wax ni carrément dafa blessé ñu naan loolu amul loolu ni nga jàngate loolu en tant que supporter ngeen ngeen am mbër di ko supporter sama ah, wax dëgg day waxaat day ñëwaat man am naa sañ-sañ wax ci am. Mhm. ah man dara dara ko. dañ koy ñaanal wér. ak tawfeex. combat bi du yàqu fii laa ko waxee du yàqoo ci Ama Baldé parce que tamit ci ku nekk lañ xam quoi. du yàqoo ci Ama Baldé te ñaanu ñu yàlla tamit mu yàqoo ci Modou Lo ñaanu ñu yàlla mu yàqoo ci ak promoteur bi nga xam ne mooy ni ko Nicolaï Inco bi def coproduction ak Alburax tey jii ni comme niñ koy waxee làmb ji mooy li may wax saa su ne rek bu fi gars yi di jéem a teg ay ay ay ay parce que lenn moo fi am mooy maanaam ñëpp ñu ngi préparé le cinq

xam nga da nga koy wax mais ñenn ñi sax da ngay di ñu naan noonu kii tuxkatu bon la ñun Pikine lañ juddoo ba yar ñu toll nii mosuñoo tux cigarette cigarette laa wax mosuñu koo tux mais nag comme niñ koy waxee boo ñu gisee suñu apparence sax kii mais ñu ma xam dëgg su ma nee cigarette sax du ma ko tux man li ci mel laa waxee bopp bi moo bëri ay bagages ci nekk rek mooy maanaam ñun ay Pikinois lañ dañoo am maanaam benn vision boo xamante ne suñuy wax dañuy wax extérieur ak ak ak ak ak li ñuy wax mu bañ a nekk ay tricherie parce que Sénégal comme ni ñu koy waxee naxante bi moo bari te ñun ñëwuñu fii nii pour wax Modou Lo ni tey jii nii sa kanam gi dafa rafet sa tànk dafa jeex ñun tey jii nii amul lu ñuy xool ci Modou Lo mënuñoo am tey jii nii ku mel ne Ama Baldé gis qualité yi nekk ci moom ku nekk na xam ki nga yor lu manti xewlo 5 dama la koy waxaat fii nga dégg ko Modou Lo ay affaire u xeebaa yooyu noonu buur bu xamee li ko fiy jëlee ah da koy da da ci ay waxam sax xam ne kii nii sa sent sa sa sent pas lañ koy def mhm. te moom tàmbalee buñu ama wax na ko ko tey jii ama nee na tey jii taxaw fa naan ay pompe à gaz de nia ñun gis bu fi am lu ne gars yi comme ni ñu koy waxee bu dee affaire ay maanaam ñii ay dañoo di xaste loolu dama koy waxaat tey boo leen wax wax nañ ci cadre entre gentleman parce que sos mën naa fa dugg sax ndax Modou dafa jël kaddu tey ji xa daal di xam ñoom ñooy mag yi nga xam ne ñooy ànd ak Ama ne matirul lu matirul duñ bàyyi ay xale yu ndaw di def ay n'importe quoi tey waxu yeddu ñu leen ñu bàyyi leen ji ba pare di leen ci ñaax loolu jàngatee loolu ah, comme ni ñuy waxee moom buy yedd na yedd ñu muy àndal mais bu am dara lu muy wax ci ñun parce que ñun yaakaar naa ne ñoo ko gën a nitee ñoo ko gën a xam àdduna moom yàlla daf koo dimbali rek wërsëgam ñëw mu tedd ci li muy tedd tey jii ni ñun yàlla dafa ñëw am fu ñu fu ñu fu ñu taxaw te maanaam fu ñu taxaw ñëpp dañu nawloo yoru ñooy milliards yoru ñooy millions mais nekk na ay jeunes yoo xamante ne ñu quartier yu dëkk dañu respecté te am ñu muy àndal ñëpp ay responsable lañ boo déggee mën ay responsable ku ci nekk am nga fooy liggéeyee comprendre nga ku ci nekk da am jabar ku ci nekk ci kër nga dëkk te ku ci nekk koñ bi nga dëkk bu fa dara xewee da ngay sa poste joxe ko comme ni ñu koy waxee ñoo xamante ne seen CV lépp nice ñi nga xamante ne tey jii sax ay saret la ñuy sax ñoom seen métier lañ yor di ko def ñi nga xamante ne tey jii ne dañu nekk ci ministère seen métier lañ def ama comme ni ñu koy waxee ama est que yaa ngi dégg tey bu soxlawee dara gars yi dañuy ñëw woote ku ci nekk génne ci li nga comme moom dafa jàpp ne moo yor milliardaire yi yor ñi nga xamante ne luñ yor du jeex mais luñ yor dañoo fàtte ne yàllaa ko moom ndam yàllaa ko moom mën ngaa yor ay milliards te doo daan kenn Modou Lo dina yor ay milliards te du daan am loolu noonu dañ koy confirmé waat pour mu leer te incha allah rabi ama dina am ndam la 5 ci Modou Lo mu koy neex mu koy naqari ci wàllu taxawaay ak supporter tey bis bi Pikine am ñaari bis Modou am fi ñaari bis diggante Boy Niang bu jug bu projet Ama Baldé Boy Niang la war a am est-ce que loolu noonu du indi benn benn genre division tuuti ci ci ci ci wàllu supporter la ci Pikine. ñun ñaanuñu yàlla mu indi division ci suñu gox te du demee noonu parce que tey Ama dafa war a mën a bëre ak Modou Lo daan ko. Hmm? titre couronne dëgg la Ama ay rêvam la Boy Niang tamit ay rêvam la. mais tey Ama moo ci jiitu loolu la yàlla dogal te ñoom ñëpp na comme ni ñu koy waxee ñoom ñëpp waa Pikine tey Ama bu ko jëlee Boy Niang fierté la war a nekk ci moom mu jëlaat Eumeu Sène doggal jëlaat kii jëlaat Modou Lô doggaliwaat ko comprendre après la vie continue comme ni ñu jii nii bu ko Ama jëlee mu ngi mel ne Boy Niang moo ko jëlee est-ce que comprendre jii nii dañuy def un appel woo pour cent bi ñëpp ñu ñëw gis nga gars yi gars yi combat bi seen combat la ñu waa Pikine nag comme ni ñu koy waxee ñun ñëpp ñoo war a def un but une fois un peuple maanaam jàpp góorgóorlu comme nañ ko daan defee làmb suñu Pikine suñu àndee nekk benn du Modou Lo moo ñuy jaaxal te yàlla nañu yàlla suturaal yàlla ñu yàlla suturaal ba tey jii nii ki nga xam ne mooy Ama ànd ak wér Modou Lo mi nga xamante ne mooy suñu adversaire yàlla defal ko wér promoteur bi yàlla defal ko jàmm comprendre jour bi Sénégal dara bañ ci xew parce que làmb lu ko yàq comme ni koy waxee bëri na ñuy teg di polémique Ama ah, day wax dëgg yàlla ci li mu nekk mu ngi ci war a nekk mu ngi ànd ak ñoom Pokola ñoom Ousseynou sàmm ñoom Ousseynou Mané ñoom Jacob Balde xam nga ñoom ñoom ñoom ñoom Babacar Balde ñoom bébé ñoom kii bé ñoom soq deux xam nga ay booy ndaw lay àndal di contact di nuyu nag suñu grand Malaw Seras boobu ba léegi mi ngi jàpp mi ngi jàpp bu baax te moom rek doy na ci gunge am mu am ndam rawatina nag ay Zilbalde ñoom per baaxum ak staff bi yëpp ñoom Tafa Ndiaye ñoom Tafa Aram daa xam nga ñoom Njaw ñoom ceebu combat bii nii rêve la d'enfant la xaw ma ndax dégg fu may xam nga luy rêve rêve de game xam nga ba léegi nii ci la doonee mbër ci la doonee mbër kon tey jii nii mooy luñ koy waxee ama waxoon na ko dóor yat bi timis gee di ko ko aal te Modou par force da ñu koy aal combat bi am na beneen bu ci nekk ndax ama ku ko wax wax ko ak ay mag pigi nag ak borom dara jay nekk pigi daan ko jàppale ñu gis ama dëggal boppam trop trop ci ci ci ci passé est-ce que tey jii doon ko jàppale den féete woon tey ci gouvernement bi duñ tee seen loxo tey mu def sëñ bi man du ma wax ci affaire ay Pastef ndax lamb du ay Pastef lamb du ay APR xam nga lamb lan la affaire u gox la ama Pikine la dëkk Modou Lo Modou Lo parcelle la dëkk ama tey waa Pikine dañ koy jàppale par force autorité yi fi nekk man mii di wax ak yow démb. moo duggee ñu ngi koy nuyu au passage le président de l'AS Pikine le directeur impôt et domaine le maire de la ville Thiaroye Djidda Kaw jàppale na Ama fan la bokk fan la bokk APR ah, jàppale na Ama te moo wootee moom ak ay jeunes woote pour jàppale seen frère gars yi bàyyi di jéem a jël affaire bi kii diine sax lislaam ko taxawal da ngay judd nekk murit sa doom juddu nekk tiijaan est-ce nga nga nga nekk professeur sa doom ne dawalkatu saret lay doon est-ce que comprendre nga loolu ay choix en vie privée nit ki la te nit ki am na choix wu tey jii nii far ak ku ko neex tey jii nii da ngay dëkk ci dëkk ci kër maanaam am ASC boo xamante ne comme exemple ñu ngi ASC naataange am na ñu dëkk naataange ñoo xam ne faral ñu naataange dañuy faral jokkoo wala ñu faral siraat est-ce kon loolu noonu c'est un sujet tabou loolu noonu amul solo li am solo mooy timboo man woona pour jàppale Ama man moo je le su ma koy waxee ni ci chaîne la te xam nañ ñëpp ñu nekk Pikine bu soobee yàlla dinañ ci jàpp naa la wax leneen ngay Ama ah. vert rouge bi lay génne te vert rouge na ngaa xam ne drapeau Pikine la yéen yéen a fi nekk naan ay brassard ah. man ay wax ay passé ah. man brassard bi brassard vert rouge la couleur AS Pikine la te Ama moom la takk te moom la ñuy préparé pour yóbbu ko làmb ja Pikine vert rouge bi dina fi saf sàpp comme nañ koy waxee suñu couleur suñu ADN la. xam nga le sang est rouge. mais la sang de Pikinois est vert et rouge. su ma déggee li nga xam ne moom la Ama da nga jàpp ne am na droit far fa ko neex wala mu manifester mais mu toll ni Ama nekk ci ginnaawam tey jii gisoo ni yow tey jii boo tollee am am am benn dayoo bi tey jii eh, am na yoo xam ne war nga ko mën a moytu tuuti rek ndax am na bu la bu la defal 100 pour cent am na lu lay yàq. gisoo loolu bu àndoon

bañ fi bañ fi jàppee bañ fi nekkee di kii Ousmane Sonko mu ne dañ ko war a bàyyi parce que jeunesse bi dañoo dañ koo gëm ak nii ak naa mais comme ni ñu koy waxee man du wax ci politique parce que lii di politique lii làmb la. te maanaam Pikinois yi fi nekk. moo xam ku bokk Pastef moo xam ku bokk Benno Bokk Yaakaar moo xam Aly Ngouille Ndiaye moo xam keneen ak keneen ñu bokk fii nii dinañ jàppale en te loolu noonu nécessité boo xamante ne la waa Pikine ñoo ko laaj tey kii di Thierno Ngom ba dina ci jàpp. keneen ak keneen dina ci jàpp isaa ak Diop dina ci jàpp Jara dina ci jàpp comprendre nga le maire le premier magistrat de la ville Abdoulaye Timbo dina ci jàpp parce que waree fam la est-ce que comprendre nga mooy gars yi comme ni nga koy loolu du sujet bi xam nga sujet bi lan la mooy Ama ñëw la cinq waa pikin ñëw gunge ko vert rouge boobu ñuy wax na gars yi xam ne couleur pikin la couleur pikin la de AS pikin bi nga xamante ne moo ñu mooy mooy club phare de la banlieue lan la ñuy sol du vert rouge ah kon tey jii bu fi gars yi di naan ay maanaam ay Sonko loolu dafa terre à terre dafa terre à xam nga lu tax mu terre à terre gars yi nañ bañ a dugal ci ay polémique Ama Modou Lo ñooy bëri gars bu ñu ko jël bu ko def affaire politique. ñu ñëwaat ci combat bi tey bi li des bëreetul tey jii seen mbër tey jii. pare na bi ñu koy wax ci côté mystique physique ak lépp loo xam ne ñu koy xaaj ci moom tey jii moo gisee. man du ma wax ci mystique parce que nekkuma ci mystique mais dinaa la wax ni. Mhm. avoir un esprit calme, -hmm. hein? Mhm. concentration, détermination, engagement. loolu lañ soxla ci Ama te mi ngi ci wàllu musique mhm. ku nekk ak wàllam dañ ne maanaam cumulé de poste ci làmb cumulé de poste la ñuy bañ ki war gérer leen li nga xamante ni mooy fexe nu Ama amee ay moyens mhm. pour Pikinois yi mën a dem stade ñu war a nekk ci làmb ji duñ bàyyi ba tey ñu nekk ci. ndax xam na ne làmb ji ju yàgg la joo xamante ne mi ngi doog a taxaw nii ñi ngi ñaan yàlla mu waag mais ma xamal la leen mhm. lu manti xew la cinq dama koy waxaat mhm. dama jaakaarloog yow nii lu manti xew la cinq mhm. ama dina jël roi des arènes bi indi ko kër Fallaye Balde ah moo tax li nga li may wax noonu mooy li nga xamante ne xam nga tey jii nii mais boo fi ma ko teg mooy maanaam ama da koo gëm te yàlla comme ni ñu koy waxee moo yor ndam gars yi nekk fi yor ay coffre-fort yi diis ak ñiy génn ci site internet yi naan ama ah, day daanoog ñeeg naa ñoom xamuñu kañ lañ fiy jógee amaana sax am na ñu koy wax jour làmb ji mën na leen fay bañ a fekk est-ce que comprendre mais xoqatal boobu na la façon de de de la façon la façon que les gens mooy maanaam di jéem a déstabiliser nit ki ñun dépassé nañu la ay xare yi yaroo ci mbedd lañu añ da daan jot seen waa kër añ nga génn ci mbedd bi dajeeg benn taalibe toog kooku ko géem loolu noonu lii la jaaxal lii gars yi wax nii gars yi comme ni ñu koy waxee rek dañoo bëgg wax di wax rek faral nañ Modou Lo nañ leen ba ñu faral ko mais le 5 nay xam ne làmb ji Pikine lay amee incha allah Pikine waa dinañ génn en masse dem stade à partir de huit heures et demi allah Modou Lo ñëw ñu dalal ko comme ni ñu koy waxee li muy bañ lépp ci làmb ji mooy lii nga xamante ni nee nañ moo koy déranger dina ko fa dégg ama ah bu ñu tëjee géew gi day dal ci kaw par force ah day dal ci kaw Modou moom leen lañ koy ñaan rek uh-huh. moom daal nañ ñëw def baaxoom boobu nga xamante ne xale yi sax bu feccee bu neex. bu baaxoo bu neex dama ne. waaw Modou bu feccee bu neex. bu baaxoo bu neex. Ah. bu bëree bu neex. bu def dara lu neex le cinq. le cinq li fay xew lépp. mooy ki nga xam ne mooy borom double nationalité lengs pii ko paa. Ama taxaw waat ne barke Serigne Saliou dama lay daan doo ma daan. waaw yow man su dee damay joué tey jii nii sax dara su ma ko déggoo li ma la degoli mo la lol non nit ni mis nañ ko ci am am ba mi bëri Papa so lan la ko wax ba mi bëri malik ñaan lan la ko wax ba mi bëri ama neex lan la ko wax ba mi beure waata guy gi lan la ko wax ba mi bëri Zos lan la ko wax ba mi daan Tapha lan la ko wax ci Ndar daf ko gëm mu nekk serigne ñuy nuy wa njabot sëñ salu gi yeb di nuy sëñ Abdou Karim borom makarima akhla mi nga xamanteni tay ji jii ñun ñep fa lañ jokk di ñaan wa wa ñun sëñ sëñ Cheikh Fall Baye Gor di ñaan tey jii waa daaru Muxti xam nga waa daaru Salaam waa daaru Minnam xam nga di leen wax ne tey jii nay ñaanal seen doom yàlla may ko ndam waa Pikine képp ku julli nag ñuy ñaanal ama am ndam parce que ndamam mooy li nga xamante ne da koo mérito parce que dafa toog 6 ans bëréwul boolewul daraa ki wax mais gars yi duñ ko détruire te duñu nangu ku ko détruire ndax ama am na ay comment ay comment ñu ko waxal am na ay xarit ñoo xamante ne tey jii nii su soxla woon leneen ak leneen dañ koy uti ñëw indil ko ko gor la gor la te moo gor dafa jafe nag boo koy wax ñenn ñi dañuy jàpp ne respecté sa kàddu kese la mais tamit am bokk da cee da cee am solo ak maanaam xam sa bopp ama ah xam sa bopp boobu muy dund nag àdduna noonu boo dee dund xam sa bopp dafa am ñoo xam ne da la ñuy mais comme ni ñu koy waxee Modou Lo na xam ne am ah dafa xam boppam yooyu muy wax nañu di ci dugal ay waxu ay soo leen gisee dañu kii nii Pikine yow mii booy Pikine la kii taxaw booy Pikine la même bu dee sax ñu ngi lii moo lay wan ne Pikine mooy Sénégal demal ci bureau bu la neex ci àdduna Pikine waa da ko fay fekk par force parce que loolu dañ koo gëm est-ce que comprendre te leneen lu may waxaat mooy maanaam buy communiquer dañ ko koy wax rek ndax moom xam naa ni même génération la xam nga Modou di léegi mu làkk fóoti xam nga kon tey jii na xam ne que muy dajal 89 la juddu demb Baldé mooy man Demba rek maa ko moom mais na xam ne tey nii moom du jam ba kenn dara géem parce que moom comme ni ñu koy waxee moom du nattale ngaak parce que ni muy waxee sax ngaak moom lay waxee dafay mer te ngaak te nante du mer nante bu nante bu meree sax ay bëñam nga war a séen mais Modou day wax yaakaar ne malaaka la du malaaka du amul zaman nit kese la tudd tudd tudd tudd tudd comprendre nga tudd duduloo dëkk Parcelles Unité 10 di yeewoo Lac di fréquenté fii nii Tivaouane Peulh comprendre di entraîné ci saal yi nekk ci dëkk bi du yàlla du yonent bi Ama Baldé dëkk Pikine comprendre nekk booy Pikine xam nga geem geem bi maanaam yaroo ci mbedd xam lu bëri ci àdduna ñëw fekk seen kër nekk zéro comprendre nekk ay braak na gars yi di xapalaat loolu mu ñëw def ko terrasse def ko étage jël yaam yóbbu maako jël ay frère am njabootam

mais waro jël n'importe qui nan ko ay ñi ngay andal koku non su ton staff loolu staff mo may def lo nit ki da nga wara jël sa njaboot yóbbu leen feneen ñu am leneen am xam-xam yokku parce que ñun ñepp ci sañoon di nga dugg kaaw yokku sa xam-xam rawatina nga am fa njaboot comme mom mo do nu mu ko fa xamé na xamné am ah, ama ñu ko wër ay nit ñu civilisé lañ bo duggé ci port bi ñu ngi fa bo duggé ci marché yi ñi ngi fa bo démé ci kaw ba ñi ngi fa comme ñu koy wax buy waxatati dañ koy conseiller na bayyi mer mom sa bu rek wax tuuxi duuna te xam nga comme ni ko a waxee dix ans daanul mbër nag na ci gars yi bàyyi xel dix fii ak daanul mbër <laughs> woo ndax combat bi fi mu toll soxla nañ ci Pikine soxla nañ ci nga xam ne ñoo la ci war a jàpp ñu jàpp ci ñan ngay woo daal man li ma ci njëkk a woo mooy comité supporter AS Pikine bu bees bi parce que man maa nekkoon président comité supporter mais dama koo sele samay frère Amdi Moustapha Seck Tafa Seck ñu ngi le président du comité supporter de l'AS Pikine ak les groupes des supporters nous le panel AS Pikine mon équipe 100 pour Pikine les ultras NTS ah hein. di nuyu aussi le président Modou Modou Gueye en plus Modou Fall di woo Ablaye Timbo le maire le le premier magistrat de la ville Thierno Ndomba comprendre grand dañ lay wax de gis nga dañuy ñëw sa kër fëgg sa buntu par force nga jàpp ci làmb ji man Mor Talla maa wax nag li gars yi di wax ñoruñu sax xam nga lu ñu ñor mooy di nga jàpp ci làmb parce que da nga ci war a jàpp parce que tu es un tey jii nii da war a xam ne tey jii nii sa njaboot xam nga njabootu kanaara la yenn saa yi dañuy jàdd góos mais yow yaay ñëw dugal leen ci rang bi ne leen daf leen nii ak nii àdduna amul solo tey jii nii comme ni ñu koy waxee ama ji na la loo xamante ni war na xewle bis nga yow yëkkati 100 millions jox ko te li may wax nii lu ma gëm la mais comme ni ñu koy waxee nit ñi bëgguñu ñuy ànd te yàlla tax te nit ñi fii nii comme ni ñu koy waxee yow xam nga ama bu baax yàgg nañ toog man ak yow ak moom nga ne ko ku gore la barki sëñ Abdou Karim Mbacke te loolu yaa ma ko gën a xam parce que yow yaa ngi fu ne lu may waxaat mooy Isaaka Diop ñëwal nga jàppale Ama comprendre nga jara maire maire maire mam mama mam jaara femme ak ginnaaw raay la maire ci Abdoulaye Diop comprendre nga ñëpp nañ jàppale booy bi parce que lamb ji lamb Pikine la de ruus la loolu li ñu naan foo mais ku ñu gañee ku ñu ku ñu ku ñu daan nga ruus te kon affaire gox la na gars yi di xam loolu du affaire ay maanaam nii ak ñii de comme ni nga genre jihaad la nag sur le but de fair play mooy maanaam Pikine ak Parcelles la te ñun ñoo jur waa ji ñoo jur waa Parcelles ñoo jur ñoo jur ñoo jur géejawaay kon tay jii ni ama buy dem di bëre ji roi des arènes yéen waa Pikine da ngeen war a fexe vert rouge bi ngeen bind tout Pikine derrière Ama Baldé ngeen takk banderole yi dem defari ay t-shirt jaay bis bi comme ni ngeen ko daan defee jouru lamb ji ngeen sangu ba set sol lu mool ñëw toog ama daan waa ji dans deux minutes ñu dem yóbbu suñu roi des arènes incha allah loolu amuñu ci xel ñaar sax léegi ku am sa conseil koo xamante ni bokkoo Pikine nga nekk de loin téye ko balal cinq jàll incha allah Khadim ma ngi lay fay. bu tay ñu fekk ci fi nga mooy sa chef tay ji Pikine ginnaaw raay tay ji am tay am bis mak diko waaj ànd si nga xam Lo bu ni ngeen waajee combat ah Khadim combat bi wa Pikine a ngi koy waajal de waajal bu reuy sax. Uh-huh. ñu ngi koy waajal waajal bu reuy ba suñu mbeur préparer na entraîner na te vraiment mi ngi ci forme deug yalla Modou yapp wa Pikine bu fi yagul daal nga xam moom mooy Eumeu seen di magu Ama Ama jël bis bi tey est-ce bis bi amul amul amul danger ci moom. non Ama benn bis du am danger ci moom Ama benn bis du rëy ci moom. Uh-huh. waaw ndax ku diggante moom ak Malick Niang nga xam ne bis du rëy ci ndax keroog vraiment métti woon na mais génn nañ ci waaw. ñu gis ni Modou dafa xaw a minimiser Ama combat bi yëpp biir combat bi am yëpp bu waxee ak moom day mel ni ku ko ku ko nawloowul daal ñoo jàngatee loolu. waaw minimiser na lu mu xamul parce que euh, euh, bu xoolee Ama bu ko minimiser na xam ni am na mbër mu mag bu muy dajal olof nag nee na di nga di nga xeeb xal mu lakk say mbir bu mu ko xeeb mukk nag Ama champion la. ñu ne Ama parewul ak yàgg du bëri bés bi tey jii Ama ne dinaa bëri tey jii loolu. non loolu la ñuy wax rek Ama parewul mais Ama Ama yow xam xaadim yaa ma gën a xam ni Ama pare na. Ama pare na mi ngi ci forme mi ngi ci état lamb ji bu doon suba suba la ñu bëre ko gisoo loolu. ñu gis benn affaire tamit am ci combat bi. Ah. Ama nekk ki nga xam dafa am mbooloo bëri topp ci ginnaawam tey ji mu fësal ki nga xam ne moom mooy passé bracelet tey takk ko te ji toog devant la public est-ce loolu du wàññi benn affaire ci ci ci popularité Ama tey ñi ko forol di nga xam ne ànduñoo ki nga xam ne moom mooy passé. non loolu lool moom mënut a wàññi ci Ama dara parce que nit ki moom mhm. choix rek fu la neex mën nga ànd moom. ba tax yeneen yi ñu ngi ne ànd ak ñu leen neex ama bu ànd ak ki ko neex tamit loolu làmb la rek loolu jot mënut a yàq ci làmb ji dara xaadim waxtaan ak sànq moom taan moom mooy dunu ngaa ki nga xam ne moom koo xam xam ko ci Pikine tey mu wax man carrément bracelet boobu di takk ko pour pour pour ki nga xam ne bi nga xam ne moom mooy AS Pikine ndax drapeau AS Pikine vert vert la te Ama bu jógee Pikine Pikine jóg te gis la dunu ngaa ko wax <laughs> mën naa nekk ndax Pikine couleur boobu couleur Pikine est-ce que gars yi jëlee wuñ ko ci ñun sax waa Pastef. Euh. jëlee ko ci Pikine nga defe ni. <laughs> waaw ba tey tamit nga xam ne am nañu ko doon jàppale tey jii jàpp ci ay combat bu baax a baax a baax a baax féete yi nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy parti APR tey jii bu defee lu seen loxo tey jii bi yàllaa am nañu yeneen ruq yu ñu mën a dugg yàllaa yor ji moom nañ nekkul wàllu xaalis ak yooyu mais nañ ko bëri am ci ndam incha allah. ama pare na. yow ama pare nga looloo Baaba Maal tukulóor la <laughs> ama pare na ama yow gën nga koo gis pare na ca fajar. Hmm. waaw. loolu ci ama pour loo xam te gis nga ci loo xam te ci jafe na ci mbërim ñu am doon loo xam dafa nekk ci moom te nekkul ci benn ba sañ bi ama demee ba fu toog waat ne day daan ki nga xam ne moom mooy Modou. Xaadim hmm. li ma la bëgg a wax mooy ah hmm. ama dafa doon mbër gi. Pafalay Balde yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana gis nga bu mu musaana romb këram fële laay toll naan ko gintee ca ndawal di tuus xoola mu naan billaay sama doom yaa saf korom waay ah ama dafa doon mbëri gi daana Moodu ca fajar moom Moodu loolu la xam moo tax mu yàq combat bu njëkk ba combat bi laaj boo xam dafa mucc ayib en pour cent Pikine bi combat ci Pikine tey jii ban nan ban taxawaay la si peut wala. li ma lay wax sax mooy xajul xajul fii ñu ko bëgg a man li ma yaakaar mooy xajul fii combat bi bu jógee nga xam ne xajul fii ñu ko bëgg a def waaw. ñu gis ñi am na ñoo xam dañuy taxaw télé bi ne carrément Modou mooy favori am na ñoo xam ne am nañ Ama daanu na bu yàgg noonu noo jàngatee loolu est-ce que mbir préparé combat ba toll fi ñu toll tey a déstabiliser tey est-ce que loolu sa moral. mais combat bi favori la Modou mooy roi des arènes mais favori amu la ñu war a daje te di xaadim da nga gis làmb ju garaaw hmm. waaw ama Ama nee na la dafa xam saraxam hmm. te loolu doo ko caaxaan de. <laughs> waaw ñu Ama da ko ñeme trop da ko ñeme ñeme lool. ba ci gàmm bi sax ba ba fa demee. xëpp na ko ñebe te ne neewaat na ko ci jàkkaarloo bu ma joxaatoon leneen lu ma la sotti dama la koy sotti. mais Modou Lo Ama ñeme ko noonu. mais Modou Xaadim euh, Modou boo ko ñemewul doo ko daan Modou xoolal ñi ko calculé yëpp daanuñu ko ñi ko calculé lépp daanuñu ko boo ko ñemewul doo ko daan foog nga ñeme ko sadi waaw soog ko mën a daan. looy digal Ama ci combat yi. Ama amul ma koy dëgal ci combat na indi li muy indi daan ko dem foo dee calculer ñu ñu lëng ko mu ñibbi li muy indi na ko bëre dem yoonam 1 2 3 lamb ji jeex. lamb ji nag jàpp day gaaw. bañ a gaaw. Moussa Kaddu gu waaye yow ndam rek laay tëjee <laughs> xaar Pikine rek. <laughs> guddi guddi Pikine. <laughs> Kostala waaw comme ni ngeen gisee ñu ak buur nga xam ne moom mooy euh, ginnaaw rek nga xam ne moom moo fii ci Pikine ginnaaw raay te ñu waxtaan ak moom waxtaan bu neex ci diggante Ama ak Modou ñi lañ koy defee dinañ dem passé incha allah nga xam ñoo fay nekk ak Modou ci combat bi ñu waxtaan ak ci préparation combat bi teg la seen loxo foofu noonu à suivre. booba danga siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb lay bari